عن خير كمال كون نبي المنتقى محمد خير الورى المختار عند الصمد كون نبي المنتقى محمد خير الورى المختار عند الصمد سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام وسلام وسلام وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين didn't try it. You can't do it. Play somebody. Whatever. Cut to me. I am in charge. I am in charge. الرباني في مكة لا لا أغني على الحد كما كما كان الإسلام يقول الدنيا أنا قلت أنا كما أعلم قلت لي توحيد توحيد وهم تكلم تهم من قلت لتتنى ما يسمى sëñ Sege sëñ Sege. su ñu waxee téere yu baax a baax nag man damay dellu ci sama xam ndax liñ bind gisuma kenn ku ci bind wala boog dama ko xool ndax xam naa ne soo gënaa ci jël doo xam ne balaa ko soo ba xëy lapp doo ma jot boo xam ne ci ne mën na bi na soo doon ko def doon ko def gën a borom boobu nag moom la def maam Cheikh Moussa def ci ci Sénégal xam-xam boobu moom la maam Cheikh Moussa def ci fii waaye fekk fi la xol bu ko jox te it ñu nangoo tegu fañ leen teg bañ ma leen teg dem nañ ñu xëy di ko liggéeyee waaye lépp la liggéey bàmba lañ koy dellu duñ fittee jëm feneen fudul kenn mënuñoo am fudul Cheikh Moussa kenn kenn kenn li teew ak li teew ci nga xam ak ñoo xam ne bañ kenn mën nañu am suñu sax ñu ko jaawalee kenn baaj na si yëkkati ma salaamaaleykum wa rahmatulah xam naa dañuy jëfandikoo ndigal rek di jot ay kàddu yu néew ak cant yi jot ci sëriñ bi jëm si yow ngay jot ñu sëriñ bi bu baax ak cantam di fàttali itam suñu yoon bu ñu mujj a daje tedd ki di Cheikh Abdou Akim Mbacké yal na yàlla sax ñu si barkeem te yow leeram yow mi ñuy toogal ko fi yàggal la fi dama nga toog de fi la toogoon ak ñun ci jotaay bi ñu mujj a jotaay mu boo xam ne ay mujj sàtt jotaay bu yéeme la ndax keroog ñu ngi ko fekk fii mu dalaa oogan ñu sikar ca biti ñu ne nañ wàcce sikar mu toog noppi koo dégg mu yónnee ne sikar si ko lañ yëkkati naa li mu ne dem nañ ne leen yëkkati sikar ndaw li ñëw ne ñu ne ngeen yëkkati sikar sëñ naa li nañu yëkkati leen ñu yëkkati sikar mu jiitoog ñun ñëw ba fii mu joxoñ mu ne ko ubbil fii dalal leen ci biir mu ngi toog fii mu ubbi dalal ñu ci biir mu ñëw toog ni nga toogee dalal sëñ bi ba pare waaw waaw fii la ne ko sëñ naa li jàpp naa la dootuma la bàyyi mukk jàpp naa la tuuti ma la bàyyi mu bëgg ñetti yoon loola mu wax daf ko dëggal gannaaw bu muy tàggoo ak Seydina Aliou mii te mooy bi ñu defaralee café ba pare kaas ba ak baraada yi yëpp dafa boole lépp jox Seydina génn ba ci ëtt bi mu jumbi ñaari dàllam mi dabee ko loolu de lu rëy la keroog mooy suñu mujjee siyaare ci Seex ak Mbàkke yal na yàlla yokk leeram lépp lu ci barke léegi dafay ñëwetu ci ñun di di tuur ci suñu xol yi ay ronkoñ yoo xam ne buñ koy suufoo duñ ko yëg ndax jotaay ba dafa nekkoon jotaay boo xam ne dafa xeme mu te yaakaaru lool ñu jàppoon ne suñu borom danañu ko bàyyee ñu dund ak moom ba ko ba ndekete yoo moom mu ñuy taw ko yëgul ay Mbàkke nag bàyyi na fi lu am solo bàyyi na fi ku am solo mu yow mii sa ànd ak kii démb la fas woon tey door a ñëw lool te wér moom itam sunu kilifa gi moom yàgg fi lool te wér yàgg la fay fekk nga yàgg koo tal di ko dalal dongo yi nekk ci gannaaw ak ci sa gannaaw ngeen di ñu digal ñuy jëf di ñu tere ñuy bàyyi te lépp yàlla rek sax barke yonent bi alayhi salaam